tey nag yàgg li li spécial mooy dañoo xëy ci Leewtoo waa gis fi Ibrahima fay bu Lutte TV directeur général Matar seen Rock Mbalax père Bekaay a ngi ni la taxaw ak DC Thialix léegi ma njëkkee si bës comme moom xam naa mooy xale si nii maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax Babacar. tey ngeen xëy ñëw fii nga xam ne moom mooy loko Leewtoo production lan moo waral déplacement bi. waaw lu waral déplacement bi gunge suñu grand frère Rock Mbalax mu ñëwoon seet si waa Leewtoo ci liggéey boo xamante ne mu ngi koy bëgg a sumb jëm ci les 1200 prises de Rock Mbalax loolu moom. loolu moo waral teewaay bi waaw loolu moo waral teewaay bi. ban taxawaay ngeen bëgg am ci 1200 yooyu. waa xam nga lu ñu naan mbooloo mooy doole tey jii am nañ benn expertise boo xamante ne euh, Leewtoo waaw am na benn expertise boo xamante ne Leewtoo am na ko ci ay événement yu muy organisé ak jot na fi organisé combat yu mag a mag te gis naa ne Leewtoo nekkul rek ci ay làmb am na vraiment ay concert yoo xamante ne ñu ngi ciy liggéey yu mel noonu rek mbalax ak ñu muy liggéeyal mu mel ni Bécaye Mbaye ak yooyu jàpp ni que tey jii bu ñu lëkkaloo ak Leewtoo war na mun a jàppale euh, cérémonie de lancement 1200 prises yi mu nekk loo xamante ne lu exceptionnel lay doon. Hmm. ana lig kan. lig ko laaj lig yow laa koy laaj est-ce que gis. <laughs> maa ngi lay bëggee Matar. waaw ñu ngi lay fay Babacar. Hmm. mu mel ni mille 1200 prises la ñu wax loolu sax bu ko waxee ñu bëri dina leen jaaxal ci euh, wàllum bëre cent prises maanaam junni ak ñaar téeméeri prises loolu doy na waar nga di ko waajal loolu nga ñëw tey Leewtoo lu waraloon tànk yi. waaw suñuy tànk comme li Ibrahima wax léegi les deux 1200 prises de rock mbalax dafa doon loo xamante ne donc c'est par national rek c'est international donc ci ñiy waajal euh, la cérémonie de lancement sur les 1200 prises de rock mbalax donc moo tax sax euh, moo waral suñu tànk tey fii parce que li ñu naan l'union fee la force mbooloo mooy doole. donc euh, bu ñu ñëwee fii Leewtoo fekk fii le directeur Thialis donc c'est parce que ak jaww donc c'est parce que c'est pour yokk doole wu événement bi la donc moo waral suñuy tànk tey fii. waaw moo tànk yi maanaam tamit ñu jàppale la ci côté liggéey bi ci côté maanaam média beeg finance ak yu mel ni ki noonu ci côté yëpp waaw ci côté yëpp waaw kon ngeen ci côté yëpp daal ñu ngi ci ay waxtaan yu yéeme sax waaw presque daal macha allah daal waaw am na solo Père Becaye moom ci moom laay mujjee ma ñëw ci DG Thialis <laughs> maa ngi lay ziar DG. ñu ngi lay ñu ngi lay ziar Babacar. tey boo taxawee ak Rock Mbalax bëre ba bàyyi bëre initié 1200 prises taxaw ak Ibrahima Faye ko tuddee taxawaay bi ak jotaay bi ak ñi nga xëy taxawal tey lan nga ci yëg en tant que DG wu Leewtoo production. waaw kontaan ak fierté rek donc ku mel ni Père Becaye moom suñu suñu papa la donc ndax doomam la kii lu mu def si làmb. ñëpp xam nañ ko moom aussi champion bu mag la tey jii moom laa wax sànq démb rek ci sa xalaat naan lamb yu dañ commencé war a bind livre c'est-à-dire comme ku moom am na système bu mu génnee boo xam ne am na solo loolu war na xalaat ko def jékki-jékki ñu def ko dafa ko xalaat te loolu mu xalaat mi ngi si boppam war na ko mën a traduire en en livre boo xam ne ëllëg génération yi nañ kii comme man mu nekk si lamb ji comme ba Bakaay ñi ñëpp. bind livre yoo xam ne nga fi fiy baax pour bu ëllëgee ñi nga xam ne ñooy ñëw génération future yi mën a sukkandiku ci loolu pour mën a aussi continuer làmb parce que làmb dafa riche dafa riche làmb lu riche la loo xam ne tey jii suñu suñu moomeel la waaw donc ñoom bu ñu ñëwee aussi si cadre benn projet boo xam ne lépp ci làmb la je pense que fierté la ak kontaan lañ ci am kon daal maanaam su mu la déggee tamit kii li mu ñëw ci kër gi pour partenariat loolu yéen pare ngeen ngir jàppale ko ci sens yëpp yi mu soxla. waaw incha allah lépp lu mu ñëw pour partenariat loo xam ne dundal làmb rek ñun ñu ngi si biir incha allah parce que ñun je pense que làmb dinañ si nekk pour yokk ci mais pas pour wàññi si donc képp lu si nekk rek loo ñu si woowee rek incha allah nañ si dugal suñu loxo pour mu gën a rafet. solo Père Bécaye. per maa ngi lay ziar. waaw ziar naa la Babacar. Père maa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax sant yàlla. man li ma lay laaj. yal na gudd yàlla guddal fan yi wéral cër yi defal ko bépp doomu aadama làmb mel ni léegi dafa mel ni lu ñuy beesalaat xawma daal balaa muy ñëw ci 1200 prises yi parce que damay gisaat yeneen xar kanam di gisaat yeneen doxalin yow loolu est-ce koy sentir. doxalin yu mel na. parce que gis nañ fi ay pay-per-view gis fi ay yeneen affaire yoo xam ne daal. waaw waaw waaw loolu yokkute la nit ku nekk ci li ngay yëngu dangay ñaan mu yàlla mu yokk làmb ji du lem rek ca na mu daan demee. bu jëkkoon ba ñoom Fallaye Balde di bëre làmb tolluwul woon fii yi am ni yëpp amul woon ñii di bëre it am na yu ñuy gis ñu ne sëtët lii nekkati dina am yu ko raw dina amaat adduna moom mel noonu bu ñu dawee d'ici vingt ans quinze ans vingt ans dinañ gis leneen lu bokkul ak lii ñuy gis ci làmb système mu bëri bi boo moytul dina changé waata règlement yu bëri dina changé et technique yi yokkute dina ci am am nañ ci yaakaar trop. te loolu yëpp pour yokk làmb la yokk suñu culture. partenariat Rock Mbalax 1200 yi ak waa production ban taxawaay la ci Père Bécaye am ak nu mu ko gisee. Père Bécaye taxawaay bi mu ci am mooy lépp loo xam ne dafa laal ci suñu culture surtout na mu laal ci làmb képp koo xam ne woo nga ma ci gis ni am nga ci loo ci mën a indi ci yokkute. boo ma ci wooyee ma wuy la Rock nag dafa nekk sama xarit de longue date boo xam ne bi mu duggee ci làmb ba léegi ah du tey jii. léegi ñu ngi rappelé wu yaa 15 ans ci ginnaaw mu invité leen moom Yékini Zallo Tafa Gueye 2 ah Eumeu Sène fekk ñu jógee Coupe d'Afrique booba championnat d'Afrique booba léegi samay xarit la lañu booba léegi itam lépp lu muy dugg moom Rock Mbal du dugg ci dara Rock du dugg ci dara te woowu ma nangam laay def buy waxtaan ak ni sa dina moo woo dama damaa bëgg a dem bërëb sàng waxtaan ak ma ku mel noonu nag bu amee lii mu am. bëri bi mu bëri te mosuma gis photo bu nu daanee Rock Mbalax ba ma dëggee ci làmbagale ko photo Rock Mbalax toog ci suuf nit tiim ko gisaguma ko ku mel noonu nag bu ne am na xalaatu 1200 prises dinaa ko ci accompagner non seulement naa ko accompagner en tant que sama xarit la mais naa ko accompagner pour le développement de la lutte et puis encore ak lépp loo xam dafa yokk sumu aada ndaxte man si nitu aada ak cosaan laa ci loolu laa yëngu ci loolu laa ko jàpp kon bu ñuy ànd ak ñi nga xam ne moo di waa Lutte TV ah damay am mbégte ci liggéey bi yow foo nekk rek am naa confiance ci ñoom rawatina nag jaww jaw danoo yàgg xamante yàgg na lii boole wunu ah calis bi mu ñëwee dan naan ku yokkul yaa wàññi mais bi mu ñëwee gis nañu am na lu mu yokk ci làmb kon bu ngeen taxawalee structure bi te yemalewu leen ko ci bëree kese et fës ci yéene liggéey bu ma ci gisee Lutte TV gis ci ah, Leewtoo TV ah sama xol dafay sedd torop ndaxte ñaari structure la yoo xam ne bu nu ñëwee ba léegi am na beneen gis-gis bu nit ñi gën a am ci làmb am na beneen feneen fu ngeen jaar ci làmb ba indi ko kon damay ànd ak yéen ñu développé ñu ànd daal ñu développé làmb ah. mais laajoon naa la ko tuwaawoon mu rëcc maanaam Père Bécaye international laa la tudde sax mais maanaam damay gis sa relation ak nit ñi fu nekk ku nekk di solliciter Père Bécaye Père Bécaye mel ni daal moom ñëpp ko soxla wala boog ñëpp ko bëgg a dëkkoo. waaw macha allah loolu macha allah <laughs> loolu lépp nit ñi ñoo baax rek bu la ci kenn nax bul mel ne ne di ba yaakaar ne yow la rog mbalax ni fi nekk ñu xam làmb duñ jeex dunu xaaj intellectuel yi mu xam ëpp ma xam-xam duñ jeex duñ xaaj homme de culture yi mu xam duñ jeex duñu xaaj mais man la choisir ñeneen ñi ñoo baax di ma choisir loolu du ci man ci ñoom la ak ci yàlla waaw loolu daal laa ci gis amuma ci leneen lu ma ci bu may dil problème naka lay di tigir waa l'Oeil du Tigre moom vraiment ñu ngi góor góorgóorlu ñu ngi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi gérer daal ñu ngi liggéey daal. gis la ci gàmm gi ngay palaato TFM de. waaw noonu la nit booy liggéey moom amul demi mesure nit day jël ay responsabilités am moom damay liggéey ak ñoom ñu woo ma ni ma kaay defal ma nàngam xalaat aw ma ci sax xel xalaat. damaa dem rek liggéey fayeeku fayagun ma nag waaye fayeeku ma leen <laughs> mais may naa leen ko ndaxte samay nit lañu seen kilifa sama xarit la njagam sama rakk la et ay nit ñu baax lañu nit ñuy liggéey lañu pour le développement de ce ku koy def ma ànd ak yow merci